salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi nga xam te ne yéen a safoo di seen seen site bi nga xam te ne mooy TMTV le roi mu mel ni tey dellusiwaat nañ fii kër xarit général seen suñu jotakeet euh, muy Thierno Moulay Sow euh, balaa ñuy tàmbali ñu nuyu ko kilifa gi nuyu nañ la waaw alhamdulilah rabbil alamin gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi Pape Sidi di nuyu adduna bi yëpp di nuyu suma mbokk taalibe yi suma taalibe yëpp yi nekk ci adduna bi ndax defe naa ne Thierno mu Thierno Moulay international di nuyu ñëpp ñi may seetaan waa bitim réew waa diaspora waa États-Unis France bu ma limee damay jum ndax bu ma limee dëkk bi bàyyi dëkk bi ñeneen ñi dañ may wone ma Thierno limoo limoo suñu dëkk kon maa ngi lim waa adduna bi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm suma taalibe yi fépp fu ñu nekk ci àdduna bi maa ngi leen di nuy bu baax di leen ziar rawatina waa Sénégal ak Afrique monde entier daal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu seen télé bu mag bi TMTV le roi di Manding télé bu xew ci jamono. macha allah di la nuyu Pape Sidi di nuyu ñëpp. di yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi. di di di di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu di nuyu waa Parcelles Assainies. 1 ba 26. di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. macha allah di ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañu yàlla jàmm. amiin amiin macha allah ñu ngi kontaan bu baax ci nuyu sell yi nga nuyu vraiment ni nga koy defee saa su ne ñu ngi siy kontaan bu wér euh, soxna si ñu ngi lay nuyu. def Sidi. yaa ngi si jàmm. ça va alhamdulilah. ah ma commencé si yow mu mel ni jamono jee passé ñëwoon nga fi tawatoon loolu yàlla def euh, nga ñëw gisante ak Thierno Moule. Mhm. am la fi daloon ba loolu génn ci yow tey nga ñëw toogaat fii ndax ku la xooloon vidéo bii passé ak ku la xool léegi dina xam ni changement am na. Mhm. est ce que mën nañ xam lan mbir mi nan la la dikkee woon avant ngay ñëw kër Thierno Moule. waaw bisimilah rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu di nuyu sëñ di ko ñaanal ci yàlla yàlla bàyyi ko fi ci suñu kanam may ko gudd fan ak wér mhm. lafal ko cat mhm. te daaxal ko noon ak pexe pexe noon ndaxte yàlla bu la falee mhm. kenn mënalu dara man lenn rek lay ñaan ci moom mooy nit ku baax li ma xam ci moom mooy nit ku baax la nit ku yaatu la soo ñëwee këram dina la dalal di nga dina la dalal dina la jox nga lekk bu suur nga naan ba màndi ñun fii jàmm rek lañ fi gis jàmm rek lañ fi am hmm. doo ñëwee doo bëgg sax ñibbi doo doo doyal hmm. man man man fan yi may ñëw nii nii nii yëpp sama sëñ bi gisante naa ak sëñ bi mais doyaluma sax si kër gi yàlla xam na loolu hmm. ndax man avant man may ñëw fii dama dama feebaroon façon feebar bu nekk dal na ma mën naa ne mënuma am dara dama yor sama xaalis ma pasar pasaree ko sëriñoo opitaaloo fu nekk Mm-hmm. dem naa fa. mënuma mm-hmm. gis benn benn njëriñ ci ci li may faju. Ah, mënuma mm-hmm. gis benn njëriñ ci li may faju. mais yàlla ak yàlla ak Thierno Moulé moo ma dimbali yàlla daal xam nga bu la yàlla bëggee rek. dalay wanale ak moom. te maa ngi ñaan sama bépp moromu jullit. lii lii du caaxaan. Mm-hmm. baatin la. Mm-hmm. amul caaxaan amul dara. Mm-hmm. képp koo xam ne amul na loo xam ne yow sentir nga ko ci sa bopp. maa ngi lay ñaan ñëw fii. nga ñëw euh, man mii dama feebaroon dem naa hôpitaux yi yëpp presque fu nekk dem naa fa. est-ce que yi daan da nga am feebar bi wala feebar bële. duñ ko sax gis. mais amoon naa fibrome duma ko nëbb. parce que nit doo soxor. su la nit fajee nga nekk sama xaalis fu nekk def naa ko fa. nit bu la fajee amul complexe amul dara mm. dangay wax te yàlla rek a tax mm-hmm. ndax nga mën a dimbali sa yeneen moroom mm-hmm. fi mu nekk nii si samay mbokk xam nañ li may wax ñi ma xam xam nañ li may wax nëbbatuwuma mm-hmm. dama feebaroon sama xaalis fu nekk def naa ko fa yaa ngi dégg mm, hôpital duma tudd nag turu turu hôpital mm. euh, fu nekk dem naa fa sëriñoo sëriñoo dem naa fa mën mm. naa ne sama xaalis moo tax mënuma am dara mm-hmm. parce que lu ma am ci sama santé laa koy def sama sëy la yàq yàqalal na ma lu bëri bi ma ñëwee si Thierno mm. euh, ma ñëw wax dëgg yàlla premier jour bi laay ñëw man awma fi sax benn gàllankoor vraiment mm-hmm. premier jour laay ñëw premier jour laa ko gis mm-hmm. yàlla dogal euh, mu gis ma yaa ngi dégg mu gis ma li nekkoon ci man macha allah mu dindi ko. Hmm. man amoon naa ay soccet ak yëpp. mais pour te dire que ne jëluma garab mais ñëw bi ma doon ñëw nii ci këram. Hmm. rek yàlla daf ma suturaal affaire yi di daj ndànk-ndànk te fekk Thierno Moulay joxaguma sax garab laalaguma sax garab. pour wan nit ñi nekk affaire yi du caaxaan baatin la man hmm. damay wax te yàlla rek a tax. yàlla moo ma tiim. te man du ma nitu fenkat damay wax te yàlla rek a tax. bi may ñëw fii damay ñëw. Thierno joxaguma garab dama ñëw di ko gis mu mu am loo xam ne dafa nekkoon ci sama yaram. Mm-hmm. mu génneel ma ko. Mm-hmm. bi mu ma ko génnalee ma toog fi deux jours trois jours mm-hmm. ma dem sama kër mm-hmm. bi ma demee sama kër damaa gis affaire yi du toj macha allah di dañ ndànk-ndànk ma xam ne lii sama njariñ moo si nekk mm. ma xam ne moom mii moo ma mën a faj découragé wu ma benn yoon te du la laaj dara nag mm. ku nekk ak li nga xam ne rek moom moom moom la moom la la war a laaj moom la la laaj mm. sa su fi kenn dara ku nekk li nga meritoo rek loolu la lay laaj li sa faj laaj loolu la lay laaj mm-hmm. taxé wu fi kenn du moom mooy laaj sax faf jinne yi ñoom ñooy laaj parce que jinne yi tamit boo leen yoree danga leen di dundal te fii si kër gi ñun dañ fiy lekk da ndékki añ reer mm-hmm. ndox du ñu naan sax ndoxu robine mm-hmm. ndoxu kireen la ñuy naan ma defal leen publicité kireen la ñuy naan ndox yu baax la ñuy naan fii fii daal one est bien occupé amoo fenn fooy dem même hôpitaux yi sax da ngay dem ñu lay ñàkk kersa di la def yenn yi mais fii boo fi ñëwee boo ñëwee doo bëgg sax ñibbi da ngay fàtte sa kër macha allah Thierno Moulay daal li ñu koy ñaanal mooy yàlla ko yàlla may gudd fan. macha allah ko cat. Hmm. te défaillant yi nga xam ne ñoom défaillant yi nga xam ne ñu ngi ko ñu ngi koy jógal di ko jéem a fexeel. Hmm. nañu xam ne mënuñu ci moom dara. ndeysaan parce que damay ñëwaat ci yow kii yàlla moo ko fal. <laughs> ndeysaan nañu noppal seen bopp. parce yàlla moo ko fi teg pour jaam yi ñun xaw nañoo dee. balaa ñuy gis ku mel ni Thierno mii. Hmm. xaw nañoo dee. ku mel ni man ak sama yeneen morom. fii macha allah. fii kenn laaxu fi nit. kenn dencu fi nit. kenn defu fi nit lu bon mm-hmm. fii boo fi ñëwee sa aajo moo fiy faju ku bëgg a ñëw nag nga mm-hmm. bëgg a gis sa njariñu yaram mm-hmm. dangay ñëw fii man de loolu laay conseillé sama moromu jullit mosuma jàkkaarloo nag ak ak ak ak caméra ba mën a wax waaye tey jii dafa am loo xam ne dafa nekk ci sama xol bii Thierno Moulay mu defal ma ko ma am si ay ouverture ma gis ci ay ouverture maa ngi nii macha allah. Hmm. maa ngi ci yoon. macha kon loolu yëpp ouverture la. ak jàmm dem ak jàmm waaw kon nag damay conseiller samay mborom. pour ñu ñëw duma ko iñaane wax te duma ko laax parce que moo ma ko ñaanal. Hmm. kon dama koy wax. macha maa ngi nii ci yoon macha allah. Hmm. laf cat waaw après loolu dinañ ñëwaat ci loolu noonu sëriñ mm-hmm. si dama bañ a fàtte témoignage yu am solo yi mu wax mm-hmm. euh, dafa ne ñëw na fi mm-hmm. joxoo ko benn garab yàlla def mu am tawféex euh, dem këram mbir yi di doj nànk-nànk dégg nga feebar yi mu fi lim ah, bëgg ma si jaar ndax dégg nga ko euh, tey jii nii lan nga ñu mën a leeral ci yooyu yëpp alhamdulilah rabbil alamin Pape Sidi damay sant yàlla julli ci yonente bi mm. li may wax kër gi daaru laahi la këru yàlla la mm. yàlla dénk nañu xam bien vrai dénk nañu mm. mm. ñoo ngi jàppale doomu aadama yi yaa ngi gis mm. moom ndeysaan bu mu ñëwee joxuma ko garab ko garab ñëw na yàlla def na am na jinne bu soxor bi ko duggoon yàqal ko addunaam yàqal ko lu bëri am ay feebar yu bëri yi nga xamante ne nekkoon na ci moom mm-hmm. yàlla def ci keroog ci saal ba ba ñu fay organiser luuma ci la yàlla def ñu jàpp ci neem bi. Hmm. mu wax expliqué carrément nu mu sonale woon ndaw si. dëgg la lu mu ko doon yàqal. Hmm. di ko indil jafe-jafe yépp hmm. yàlla def ñu tuubal jinne bi. ñu dugal ko ci diine lislaam. macha allah après ndaw si am fi ay fan ñibbi. ñibbi këram am na borom kër. yàlla def mu dem gis yaram bi macha allah oyof nekk si jàmm feex. yàlla def wërsëg bi ubbeeku buntu tukki taxaw. mu ñëw di ma tàggu nag ma koy ñaanal. di ko may dara li nga xamante ne ndeysaan garab loolu laa ko war a loolu lay war a dem di mm. utiliser bu eggee mm. kon li sant yàlla la mm. defal naa ko ñaan joxuma ko dara génne naa jinne bi ci moom gis na résultat aajom faju na te joxuma ko garab joxuma ko sunguf joxuma ko dara kon lépp nga xamante ne doole yàlla dafa dafa dafa dafa dafa mbirum yàlla dafa yéeme dëgg la yàlla nag jox nañu kàttan jox nañu pouvoir macha allahu doomu aadama yi ñu ngi ciy gis seen bopp tey gis njëriñ ak résultat loolu moo waral mu dellu si. Mhm. ba pare addiya bi ñu waxante woon ci kattanu yàlla mu indi ko. kontaan bég. Mhm. loolu moo ko dellu si tey mu ñëw di ma tàggu wala mhm. ñibbi. defe naa ne lu leer la kër gi moom dafa am lu fi ne. maanaam man fu ma ne laa wax. fu ma ne. dafa am lu fa ne. ndax na man yàlla laa nekkal ak yonente bi. moo waral nit ki day ñëw ci man ndeysaan. du gisante ak man sax. Mhm. aajom commencé faju dëgg na parce que y' a quelque chose daal am na mhm. lu nekk fii. Mhm. waaw lu ne fàng nag kenn du ko jeex. defe naa ne du moom rek moo fi wax loolu. dëgg la ay nit fan yi jël nga ay témoignages yi nga xamante ne. aussi ñëw nañ fi. xaw nañ diire tuuti. joxuñu leen garab seen feebar wér. kon y' a quelque chose. avec moi y' quelque chose avec moi. dëgg la dëgg Euh, soxna si est-ce que mën nga ñoo wax tuuti bu fekkee ne jot na nga ko wax parce que bi fi jotee ñëw dafa am jinne bu jàppoon ci yow. Mhm. est wax nañ la jinne boobu nu mu tudd ak bu ko tëwalee nan lañ ko tuddee est-ce que yaa ngi koy fàttaliku loolu. waaw maa ngi koy fàttaliku bu hmm. la tudd. Ibrahima la tudd. Hmm. te jinne boobu lu nekk defloo na ma ko ci àdduna. Hmm. daf may yàqal yàqal lu bëri. ñun dama doon am problème ak sama sëy ak sama jëkkër. sama liggéeyukaay. def maa daf may indil problème mënuma expliquer lépp loo xalaat ci yaa xeetu yaa yàq-yàq hmm. daf ma ko doon defaral. Hmm. mais gannaaw bi ma ñëwee fii. Hmm. ci barki Thierno Thierno mii. moo ma faj. su ma fi gisul woon njëriñ du ma fi ñëwaat yàgg naa fi ñëw. du tey laa fi gis fi njëriñ. ak baatin moo tax ma fi ñëw. tamit yaakaar naa ne bu bu la fajee te gisoo euh, njëriñ doo ñëw indi xaalis. ñëw di tàggoo. donc bu ñu la fajee nga parce que li nga demoon am nga fa gis nga fa njëriñ. Euh, mu mel ni nag am na changement bu mag bu am ci diggante bi nga fi jógee bi nga fi demee woon ak léegi. Mm-hmm. parce que boo dee xool bi nga fiy ñëw ak léegi a a mm-hmm. ngi dugg ci ay nii nangam mm-hmm. que nit ñi tamit jar na ñuy tontu parfois parce que nga li ma seetlu mooy changement day chaque jour day gën a yokk. man gis naa loolu bu baax. Hmm. tontonte bi sax jaru ko fa mhm. gis nga noon yi moom mhm. jaruñu tontu kii yàlla moo koy tontu mhm. yàlla moo koy tontul mooy résultat yi waaw loolu rek mooy résultat bi yéen ñii ci sax rey seen jaru ko yàlla moo koy tontul parce que ku yàlla teg ku yàlla fal taal bi yàlla taal nga sotti ci matt moo gën nga koy fay munoo ci dara loolu yàlla moo ko def kii yàlla moo ko wàccee ci suñu génération pour mu dimbali ñu parce que ñun dañoo sonnoon ñun dañoo sonnoon gis mosuñu gis ku mel ni comme kii hmm. kon yàlla moo ko fi wàccee teg ko fi hmm. na ko jaam yi nangu na ko hmm. jullitu yàlla yi nangu te képp ku ko nangu nga ñëw fi sa aajo dina faju man daal loolu laay digal sama moromu jullit yi ak sama morom mbokk mbokku catholique yi loolu laa leen di ñaan fii yàlla moo ko fi teg waaw <coughs> euh, sëñ bi ma ñëw ci yow tuuti parce que dafa am benn yóbbante wax ne ñu nekk bitim réew ñoom koy yóbbante mooy que boo dee xool kër gi ñi fi nekk genn wàll ñu si bëri bitim réew nañ ñu si bëri ay une semaine la am parce que liggéeyu tubaab la ñu yor maanaam sonn ak jaaxle moo tax ñuy daw ñëw ñu si bëri ay une semaine la am ñeen ñi deux bëri bëri deux semaines te ñoom bu ñu ñëwee fii euh, dañuy bëgg taf-taf ñu lijjant li ñu leen daw delluwaat parce que xam nga tubaab bokkul ak Sénégal donc euh, est ce que yaa ngi bàyyi xel si ñooñu noonu parce que ñu bëri dañ ma laaj ne bu sëñ bi doon bu ñu mënoon faj à distance moom moo ñu gënal parce bu ñu déplacé ñëw day doo doo leeral tuuti si loolu noonu pourtant dañuy faj à am na tamit nga xamante ne ndeysaan hmm. dañuy ñëw pour gis ma hmm. ñenn ñi dañ may woo duñu ma mën a jot aussi hmm. liggéey bi y a beaucoup de ici y a beaucoup de monde chaque jour macha allahu doomu aadama yi dañuy yokku chaque jour nit yi dañuy yokku ndax dañ fi gis njëriñ loolu moo waral damay liggéey vingt quatre heures sur vingt quatre heures gis nga dañuy fanaanee liggéey xoole instant bi ban heure moo jot sax pour l'instant sant bii nii ñoo ngi ci deux heures deux heures vingt. Mhm. deux heures vingt et un. Ah. ci guddi. ndeysaan. Euh, démb ban heure laa wàcc quatorze heures dama fanaan wàcc quatorze heures. Mm. kon maa ngi dimbali ñi nekk bitim réew maa ngi dimbali doomu aadama yi. parce que boo gisee may sacrifice suma live sacrifice suma njaboot nga xamante ne ndeysaan tey waroon naa nekk suma wetu soxna waroon naa nekk suma wetu njaboot mais gis nga damay bàyyi loolu yëpp. ñëw toog fii ak doomu aadama yi ñi jóge bitim réew jóge fu ne hmm. du ma nelaw guddi maak ñoom ñu nekk fii hmm. aussi euh, di liggéey ba ba ba fanaan hmm. fanaan ba xëy aussi yendu parce que calculer boo fanaane nga xëy ba wàcc 14 heures ci bëccëg kooku da ngaa yendu da fanaan da yendu dëgg la kon nag loolu moo waral aussi na nit yi comprendre ndax jamono ji adduna buy ñëpp ma daw song di ut si gis nga am na su may mbokk yi nga ne ñu bari dañu may woo ñi ay ministre lañu sax mais pour ñu jot ma problème la da hmm. nit yi insister comprendre ndax jamono ji macha allah adduna bi yëpp ma daw ut si hmm. te vraiment dañu gis aussi njëriñ dëgg la dañu gis njëriñ hmm. loolu kese la man maa ngi def lu ma man boo xoolee ne heure bi nii ñoo ngi ci deux heures du matin si guddi deux heures vingt et un si guddi te xam nga ne fajar instant bi suba suba lañ jëm. dëgg la nii lañ koy askileere ba ba suba. incha allah waay comme d'habitude. gis nga ne. <laughs> nga daanaka yow it naa la léegi. <laughs> waaw kon sant yàlla rek. dëgg bi. Mm-hmm. Euh, ñun duñu tontu kenn bu dee ku wax nga tontu ko rek. Mm-hmm. tontu yi day bari. dëgg la defe naa ni nit ñi dofuñu gis nañ. Mm-hmm. xam nañ. xam nañ oto bu ne ci kanam rek la ñuy corné. oto bu ne ci ginnaaw kenn du ko corné. kon jamono ji Thierno Moule moom moo xew. mooy jàppale jaamu yàlla yi foog ñu wax ci moom. dëgg la ma ne ku boot ku boot ku boot bukki foog xaj yi mbaw la. Mhm. bañuñu ku ñu mbaw. Mhm. bañuñu ku ñu waxal. Mhm. waaye li ñuy bañ nit ñi fekk ñu si maanaam. Euh, xaw ma nan lañ koy waxee ci olof. Euh, bañuñu ku ñu yekk ci gaalu xaj. waaw bañuñu ku ñu yekk ci gaalu xaj. waaye si waaye duñ ci fekk ñu lekk ci. lool la foog ñu waxal ñu. dëgg jamono ji boo xoolee ne. Thierno Moule moom moo xew mm. Thierno Moule la yàlla yónni mm. ci jaamu ci jaamu yàlla yi mm. Thierno Moule la yàlla yabal ci jinne yi mu tuubal leen mais loolu foog mu am rim foog wax am foog ne noon yi wax foog defeyant yi wax mm-hmm. mais dangay bàyyi ñu wax man duma tontoo ti kenn parce que bu dee ku wax ma tontu ko dinaay tontu duma am temps aw ma temps y a pas de temps que instant bi nii ñoom ñëpp nelaw nañ ñoo ngi ci deux Euh, deux heures vingt trois. Hmm. ñoom ñëpp nelaw ne hmm. quand même mamaa ngi nii toog di xoole. Hmm. du ma nelaw guddi du ma nelaw kon nag aussi du ma am temps di tontu. suma taalibee nañu comprendre nag na nit ñi comprendre nag te du wax yi rek de gis nga wax yi romb yi nii am na yeneen yi garaaw yi gars di waajal chaque jour di ñuy waajal ay créer ay créer yàq der ay créer yeneen ak yeneen. na nit lu ñu dégg rek bu mu leen bett bu mu leen jaaxal parce que c'est normal. ñu attaqué seen i mbër c'est normal mënul ñàkk. Hmm. lu woy lu woykat bi waxoon rek maanaam euh, bul faale bul toppatoo bojo bojo xaw ma naka naka. Hmm. kat boobu Youssou Ndour nu mu ko waxee woon. Hmm. xam nga tuddee naa ko jinne nu mu ko waxee woon rek man noonu laa koy jàppee. du ma leen tontu du leen faale. ay bojo bojo lañu. point. macha allah suñ bi leerali am na solo waaye li ma wax rek mooy euh, ñu vidéo yi mi ngi fi. waaw ñiy wax tey lu ñaaw démb ñoom ñoo toogoon ci vidéo yi wax lu rafet. donc loolu man maa man maa ko fekke woon te yu bëri maa ko filmé woon. Mm-hmm. donc amul solo man pour man euh, résultat yi ngay def yu positif yi nit nga faj nit nit ñëwaat. ne la maa ngi lay sant di la gërëm. donc loolu rek mooy mooy tontu bi euh, soxna si ñu bàyyi nga def sa tàggatoo ñu doog ko tëj. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw maa ngi leen di remercier Pape Baye Seydi di leen ñaanal yàlla lafal leen cet. bàyyi leen fii ci kanam. te ngeen jàppale Thierno bu baax parce que Thierno nit ku baax la. nit ku eef mhm. nit ku laabiir. te dafa soxla ay nit ñu baax ñu mel ni comme moom. Mhm. ñoo xam ne dañ koy dimbali si liggéey bi. Mhm. di ko jàppale si liggéey bi. parce que il a besoin de ça. Euh, nit ku baax. bu ko fi yàlla tegee. ay ñu baax ñoo ko war a jege. bañ ko yaaxal. yéen nag wax dëgg yàlla ay nit ñu baax ngeen ñun suñu ñëwee ci kër gi di ngeen ñu teral. di ngeen ñu di ngeen ñu jox ñu lekk di ngeen ñu jox ñu naan. xam nga. toppatoo ñu daal ba suñu heure ñibbi jot. ñu hmm. ñibbi. Hmm. man daal loolu laay conseillé nit ñi képp koo xam ne daal am nga sa aajo ba war a faj. Hmm. ñëwal fii maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. jërëjëf kontaan nañu sëñ bi ñu baale nga tàggatoo rek. sant yàlla. julli ci yonente bi. naan eh, di dalal sama xelu taalibe yeeg yëpp. ma Thierno Moule ngi ci jàmm ay taalibeem. ngeen comprendre c'est normal foog wax am. mënul lool rek laay wax ñu nañu xam. Hmm. sori. Hmm. suba suba tamit suba suba tamit dinañ ma waxal leneen. dëgg la nañu comprendre. nañu hmm. xaar ay wax rek. incha allah ñuy déglu dinañ wax di déglu. loolu kese la di sant yàlla di julli ci yonente bi. di ñaanal ñëpp jàmm. Thierno Moule Sow la missionnaire di Dieng. maanaam maa ngi fi di jàppale jàmm yàlla ci sama wàllu xam-xam. macha allah sama wàllu baatin. macha allah naa ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. lépp yàlla ak yonente bi la. lépp yàlla ak yonente bi la. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di sant euh, soxna si nga xamante ni moom la ñu waxtaanal di sant ñi nga xam ne ñoo seetaan seen fi bi nga xamante ne mooy TMT le roi di ma leen jox dig daje beneen si beneen incha allah ci beneen émission jërë ngeen jëf